ne Mamadou Seck moom daf ci opposé wu mhm. euh, mujjee di ko entendre moom euh, Pape Ndiaye euh, d'abord dossier bi ak ni mu yéexee boobu ba léegi est-ce que nekk na lu la bett ginnaaw bu ñu waxee diffusion de fausses nouvelles ak outrage à magistrat mu xaw a jël temps tuuti non bettuma bettuma doon naa ko xaar comme beaucoup de Sénégalais tamit yaakaar naa ne doon nañu ko xaar seulement bu ñu nee bettuñu ça ne veut absolument pas dire que ne c'est normal mhm. déjà bu ma yemee si li nga wax noonu rek souvent dañuy def confusion bu ñu nee euh, retour de parquet am na journalistes yi di bind que ki nga xamante ni moom moo subir retour de parquet boobu daf ko bénéficier alors que euh, c'est totalement le contraire tey jii nii bu nekkoon ne retour de parquet am na mun nañu wax kon ne depuis vendredi ba léegi Pape Ndiaye mu ngi en garde à vue garde à vue plus de quatre-vingt-seize heures je crois que am ba mbiru terrorisme rek la ñu permettre euh, parquet euh, mu mu doxalee lu mel noonu euh, seulement pour en revenir au au, au dossier. lu tax ma ne bettuñu c'est parce que quelque part depuis un certain temps dañu constater que. Euh, dossier bu mel nii su ma mënee jël sax exemple bi nga xamante ne nii moom mu ñëw à l'esprit muy bu Cheikh Oumar Diagne nga xam ne nit ki day toog ci plateau télévision am lu mu wax mm. ñu ne loolu mu waxat teguwul ñu jàpp ne dafa am ku mu diffamé wala comme nu ñu ko waxee euh, dans le cadre de l'affaire Pam Ndiaye dañu jàpp ne euh, diffusion de fausse nouvelle la. Mm-hmm. mais léegi bu boobaa ci loo xamante ni nit ki dafa toog mu wax ko ci saa si yow nga dégg ko ñeneen ak ñeneen dégg ko mais ana lañu la ci yóbbu dossier boobu en instruction parce que instruction ça veut dire enquête. Mm-hmm. te man jàpp naa ne euh, comme bu Cheikh Omar Diagne ba bu Pape Ndiaye bi également dossier la boo xamante ne ni normalement bu nekkee ne ñoom téye nañ foo xamante ni dëgër na warul dem en instruction flagrant délit lañ ko war a juger comme ça s'est passé avec les députés la mu euh, euh, comment dire dossier bi euh, yegsi na ci euh, le parquet ñu euh, arrêté une date boo xamante ni ci la ñuy procéder au jugement mu nekk en flagrant délit léegi nag ñoom il préfère ne dañ koy yóbbu en instruction instruction boobu ça peut aller jusqu'à six mois pendant tout ce temps Pam Ndiaye lui il est en prison attendant tranquillement que ñu woo ko pour complément d'enquête boo xamante ni ce n'est même pas sûr que dina am parce que loo xamante ne ni daf ko wax ci saa si mu ne par exemple tel am na yow bu loolu amul euh, nee ko amul ou bien moom bu nekkee loolu am na nga gën gënal ko d'autres chefs d'accusation mais munoo ne ci wax jooju mu wax noonu da nga ciy ubbi instruction boo xamante ni ça nécessite une enquête enquête boo xamante ni gisuñu ko fenn léegi nag li tax loolu am mooy que euh, souvent on l'a vu te ci tànk yooyu la ñu nekk dañ lay dugal prison bàyyi la foofu jusqu'à un certain moment ñu ne may nañ la liberté provisoire. c'est ce qui war a wër mais amul lenn lu ñuy wër amul lenn lu ñuy wër parce que comme ni ma la ko waxee. dafa toog ci plateau télévision wax ko ñoom ñu dégg wax jooju comme ni ko sénégalais yu bëri déggee. ñoom bu ñu jàppee ne wax jooju am na loo xamante ni teguwu ci mais na nañu ko yóbbu en garde à jàpp seen procès mu nekk en flagrant délit bu boobaa Pape Ndiaye devant un juge dina mën a tontu mais tout ça li muy gën a ndural mooy que puisque moom émission bi il a parlé de substitut du procureur et du léegi bu ñu ko yóbboo en instruction tey kii yóbbu Pam Ndiaye mandat de dépôt bu nekkee am na du nekk procureur yi mu tudd mais un juge d'instruction mu mel ni kon ñoom dañuy bañ ñu ne da ngeen a nekk dans le cadre fayoon teg yooyu quoi mu ngow mhm. ñu gis ouverture d'une information judiciaire ouverture d'une information judiciaire est-ce que dossier bu ni mel euh, comme ni ko Mame Birame waxee doon loo xam ne ñu ngi ko ciy xaar waa non effectivement xam nga bu ñu nekkee ci réew boo xamante ni dañuy euh, ni démocratie la ak état de droit euh, dañuy naan principe bi mooy liberté exception bi tey jii mooy nga nekk ci lieu de détention euh, donc tey ku nekk ci genre situation yooyu kenn warul la la facilement di la di la privé li nga xamante ni sa liberté parce que dafa nekk droit boo xamante ni droit bu constitutionnel la mais malheureusement dañuy gis ni que comme nu ko Mame Birame waxee léegi ay ay nit ñoo xamante ni wala ay cas yoo xamante ni dañ fi jaar mën nañ jël par exemple Papito Kara wala Ousmane Diagne ñoo xamante ni leen jël euh, làq leen jant bi ci benn diir ñu xëy suba euh, bàyyi leen leen dem seen kër ba bu ñu leen soxlaa euh, li nga xamante ni ñu woo leen pour benn procès lii pour bi foofu mooy que Issa mhm. lan moo tax tey par exemple ci Pape Diagne boo Pape Ndiaye du moins boo moytuwul fi mu nar a mujj mooy mandat dépôt te avocat yi dinañ plaider pour ñu bàyyi ko ba bis bu ñu ko soxlaa mu dem wuyu ji parce que yoon ñëpp la fi nekkal mais duñ ko duñ ko def et bu ñu demee ba benn temps li ñu ko doon bañal dañ ko koy accepter dara du changer mën na jël exemple Pape euh, Pape Alé Niang Pape Alé Niang Pape Alé euh, au départ avocat yi dañ doon wax pour ñu bàyyi ko mu ñu dem këram ba bis bu ñu ko soxlaa ñu woo ko moom dina dem wuy ji ñoom dañoo bañoon ni présenté wul garantie yi tax moom dañ koy accordé li nga xam ne mooy liberté provisoire mais pourtant fan nañu mujjee mooy mettre ko si li nga xam ne mooy contrôle judiciaire te pour amul dara lu changé adresse bu mu amoon la am garantie yi ñu ko doon wax amu ko moom la présenté ba tey te moom la avocat yi bi euh, dossier bi avocat yi euh, lu mu tudd présenté woon moom nañu moom nañu wéy di présenté donc pour dire que ni dara du changé lu dul que ñoom dañuy jàpp dañu nekk ci logique boo xamante ne mooy que euh, kaso bi dañ fay yóbbu nit ñi pour yar leen wala pour jéem a wàññi seen xadar parce que ñuy gis ni que am na yenn wax yoo xamante ne ñi ngi koy wax te wax yooyu noonu peut-être arrangé wu leen parce que aussi bu ñu nekkoon rek ci réew boo xamante ne réew du droit la euh, magistrat yi ñu naan dañ leen outragé dégg naa fi ay kaddu yoo xamante ñoo gën a outrageant te mosuma si dégg euh, li nga xamante mooy suite judiciaire Adji Sarr def na fi euh, interview ak benn organe boo xamante ni ci bitim réew la ne mu ni que magistrat yi dañu ragal Ousmane Sonko te pourtant amul benn enquête amul benn benn benn benn benn benn benn autosaisie amul lenn loo xamante ni nemmeeku nañ ko ci kàddu yooyu dégg nañ fi aussi euh, ki nga xamante mooy Bougazeli jàkkaarloot ay institution parce que gendarme institution la jàkkaarloot gendarmerie yooyu noonu gendarme yooyu di leen jéem a corrompre ci vidéo boo xamante ni dafa mujj viral amul benn mbir boo xamante dañ ko teg ci kaw ñooñu alors bu nekkee nag ci ñi nga xamante ñoom ñoo féete ci kujje gi wala ngay am yenn kàddu yoo xamante ni ñoom dañu lay féetale ci kujje gi ñooñu moyenne la ko toppee dañ lay la kaso ci ay voix la lépp li ay kàddu la yoo xamante dafay waroo ak ñoom seen ay intérêt te jàpp nañ nañu kàdd yooyu dañuy jur pour jéem a askan bi kàddu yooyu noonu dañ koy jàppee kàddu yu dangereux alors que en réalité euh, ci mbirum Pape bi amul lenn loo xamante ni war nañ ko mën a war nañ ko mën a en fait war nañ ko mën a opposer Pape Ndiaye ba naan dañ koy dañ koy dañ koy yóbbu ci li nga xamante mooy garab à supposer que sax mu juum mais xanaa journaliste du juum la moo tax ñuy def ñuy accepté euh, tey ji euh, presse écrite boo juumee nga wëlbati ko def sa erratum nga ni lii dama maa ko bindoon mais dama juum nga excusé wu mu lan moo tax tey jii ñi nga xamante dañuy nekk ci plateau télé bu ñu juumee duñu leen ni ok demal si plateau bi nga ko waxee woon fi nga ko waxee woon ak heure bi nga volonté loolu day fekk nga nekk ci volonté def lu baax dañuy nekkul nag ci volonté def lu baax moo tax dañuy nekk di xool yenn émissions yi di xool yenn nit ñi di seetaan seen ay émission di leen topp faute bu ndaw bu seen kaw parce que en réalité loolu la wax mooy euh, bête noire bi nga xamante ñi ngi koy cherche depuis depuis des années mam biram mu di ñaari tuuma yoo xam ne moom lañ gàll ci ndoddam benn bi diffusion de fausses nouvelles beneen bi ñu wax outrage à magistrat est que jàpp nga ne ñaari yooyu li nga xam ne moom lañ retenir euh, contre Pape Ndiaye ba jamono ji en tout nekk na loo xam ne luñ mën a wéral la bu fekkente ne taskatu xibaar la bu doon def liggéeyam hmm. en plus am xam ne moo fi nekk mu di correct te ñoom su ma juumul seen rôle mooy recadrer peut-être les journalistes euh, non bu boobaa day fekk ki wax jara recadré man jàpp ma benn yoon que Pape Ndiaye dafa juum am na ay source am jox nañ ko information jàpp na ne loolu c'est la vérité ñëw na wax ko la télévision te à l'état actuel des choses euh, maa ngi koy wax la dernière fois Pape Ndiaye waxul ne Macky Sall c'est un blanc waxul loolu waxul ne procureur am na ñeenti jabar alors que procureur bi célibataire la Pape Ndiaye lu mu wax pour ñu prouver ñu ko c'est une fausse information il faut que ñu wone lu leer jusqu'à preuve du contraire man dama jàpp ne lu mu wax loolu mooy la réalité léegi nag bu nekkee te je le rappelle Pam nekkul bërki démb la dugg ci journalisme bi man mii di wax wal fa Walfadjri laa ko fekk je me rappelle sama premier jour bi ma fi ñëw ab doyen Abdourahmane Camara yàlla na ko yàlla yërëm moom ma ko présenté boobu mu ngi fii te lam doon liggéey booba jugu ci ba léegi maanaam di xëy tribunal information yu fa am affaire yu ñu fay traité mu jël ko def ko ci journal Walf Quotidien te mosuñu ko ci woon a topp te mosuñu koo topp ci diffusion de fausses nouvelles donc moo tax ma ne <coughs> bu ñu demee ba ne lu mu wax amul il faut que ñu prouver ñu ko ne loolu amul puisque wax naa ko la dernière fois Pape Ndiaye lu mu wax ñun pratiquement ñun ñëpp koy wax. Mhm. c'est c'est peut-être que mots yi mu utiliser moo bokkul ak mots yi ñu utiliser mais depuis le début wax nañu ne le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko c'est un complot li ci xew Sénégalais yëpp gis nañu ko tey jii nii ba ñi si jox Adji Sarr dëgg mooy ñi farak waa Benno Bokk Yaakaar donc moom bu ñëwee wax loolu génne d'autres informations yoo xamante ni ay sources jox nañu ko ko je pense que ñoom bu ñu demee dañ koy topp ci loolu il faut que ñu prouver aux Sénégalais que Pape Ndiaye nekkul maintenant par rapport ak euh, outrage <laughs> mais xanaa kon bu boobaa ñun journalistes yi mun na ñoo wax ne y a eu quelque part outrage à journaliste parce que yow convoqué nga journaliste yëpp euh, ñu ñu ñu toog nga joxe information boo xamante ni jusqu'à présent kenn vérifié wu ko le procureur bi nga xamante ni moo fi jóge bërgi dem annoncé nañu fi ay rebelle yu dugg biir Dakar réer jusqu'à présent rebelle yooyu kenn gisul fu ñu nekk est-ce que information doon def mu ne nee na liggéeyam la doon def ah waaw léegi nañu expliqué ndax Pape Ndiaye dafa toog ci plateau di wax en tant que invité Pape Ndiaye daf doon wax en tant que chroniqueur maanaam dans le cadre de son te lu mu wax en tant que journaliste professionnel boo xamante ne dafa dem wuti ay information ba mu leer ko ne lii ni dëgg la mu toog ci plateau wax ko tout à lool lool man loolu laa jàpp. mais lan nga jàpp ni moom le reste. Euh, mu nekk benn dossier boo xam ne euh, dossier judiciaire lañ ko mën a duppee euh, am na loo xam ne moo fi xewoon ndax jàppoon nañ Pape Alé Niang ginnaaw ba ay médias yoo xam ne coupe nañ fi si ñëw yu Walf Fadjri après ñu menacé sax que ni boo moytuwul mën nañoo retirer la licence du groupe de presse Walf buñ demee tey ba finalement ñu jàpp Pape Ndiaye pour loo xam ne dafa wax ci ay informations yu mu joxe ñu jël ko teg yoxo lan nga jàpp que ni fi mu nekk lañ jëm est que nekkul un métier menacé. <laughs> non de toutes les façons loolu nekkul tey tey la commencé yàgg nañ fi wax ne tout les voix discordantes ñi nga maanaam ñëpp ñi nga xamante ni dañuy wax lu safaanoog li gouvernement bi bëgg wala li régime bi bëggul bëgg boo moytuwul dinañ la créer ay difficultés ba jàpp la lenn nag doon nañu ko xalaat tout le temps puisque le président Macky Sall moom ci boppam moo toogoon mu ne Euh, ci réñam duñ ci mës a jàpp un journaliste on a vu que ces six derniers mois au hmm. moins jàpp nañ ci deux journalistes yoo xamante ni c'est dans le cadre de le travail loolu nag lu muy wone mooy un régime boo xamante nii mu ngi arrivé à son à sa fin nekk aux abois nekk en panique totale képp koo xamante ni wax nga leen rek mu jàpp ne kat kii dina am lu ma yàqal jéem la fexeel mais loolu ça ne peut pas passer. Mmh. Pape Matar est-ce que da nga jàpp que ni euh, euh, ñi parce que régime bi dafa jeexal. Mmh. non mais euh, loolu la parce que boo xoolee en réalité li ñuy def nii yëpp loolu la intimidation la ak jéem a fexe ba nit ñi parce que en réalité lan moo si judd mooy benn réflexe da ngay xëy di liggéey si sax nit ñi nga xamante dañ la xam dañ la jege boo demee na nga xam looy na nga

Euh, tubaab bi ba nga ko fi teg c'était pour protéger l'administration française pour que ñenn ñi ba ñu am sax droit de regard ba benn critique duñ ko sax sañ formuler à l'égard de nga xamante ñoom ñoo fi nekkoon mais euh, tey code pénal boobu noonu bu ñu ko appliqué dañ lay naan sax euh, par exemple si wàllu diffamation allégation boo xamante ni même su bu nekkee sax yow tuddoo ko nga def ay insinuation rek mën nañ la si toppee pour diffamation mais démocratie boo xamante dafa nekk démocratie majeure mënatul accepter loolu donc je crois que ni euh, état du Sénégal li mu nekk tey mooy jéem a intimider jéem a xooqatal jéem fexe ba peur bi changer de camp parce que ñoom euh, instant dañuy ragal euh, li nga xamante ne mooy perte nguur gi te dañ nekk ci benn incertitude ñoom xamuñu ba tey bu ñu nuwee li ñu bëgg mooy seen troisième candidature bi boobu ñuy wax bu ñu si jomee lan mooy doon réaction sénégalais du renseignement généraux du a wax lan mooy doon réaction sénégalais face à cette incertitude na dañuy jàpp ni Pape Ndiaye bu waxee mën na influencer Sénégal yi Pape Makhtar bu waxee wala Mame Birame bu waxee dinañ influencer Sénégal jàpp nañu Walfadjri bu ñu wanee ay image dina inciter nit ñi alors que nit ñi déjà am nañu seen information yi ñu war a am toog di xaar état du Sénégal par rapport ak euh, li nga xamante ni bëgg na ko def te loolu réaction yooyu noonu du réaction yoo xamante ni nit ñi ñoom ñoo koy nit ñi nekk si ginnaaw di ko di ko santaan mais dafay nekk loo xamante lu spontané te loolu moo danger mooy spontanéité bi nga xamante mi ngi développé te ñoom ba tey xamaguñu euh, nga nekk ci dëkk bi nga xam ne ci nga nekk ci la dañoo teg loxo benn taskatu xibaar boo xam ne euh, buñ ko mënee wax délit d'opinion d'abord sa avis tan tant que citoyen sénégalais ci biir boobule waaw maa ngi leen maa ngi lay remercier ci question bi di wax ne am na solo di commencer d'abord par di leen masaw ci seen mbokk journaliste boobu noonu ñu teg loxo di leen masaw bu baax a baax di wax ne aussi signal yi ñu fi coupé woon ci Walfadjri donc yëg nañ ko et puis ñu ngi leen di masaw li may wax rek mooy la bourgeoisie n'a jamais aimé les rapporteurs de mauvaises nouvelles donc tey bu fekkee ne journaliste wax na yenn yi suivre ma nag dossier bi bu baax hmm. mais réew mi li fi xew doy na waar parce que dafa mel ni léegi ku sëqat rek ñu tëj ku sëqat rek ñu tëj donc ñu ngi leen di masaw di wax ne tey état bi pour man bu ñu amee conseil bu baax nañu moytu loolu di gaaw a jàpp rek di tëj parce que li xew bërki démb ma ñëw ci un peu par rapport ak waa FRAPP yi bëggoon dem déposer lettre de protestation ñu jàpp leen dafa am kenn koo xam ne bi mu génnee dama waxtaan ak moom lii c'est message bu may lancé état bi ma waxtaan ak moom ne ko foofu baa kiiwuñu leen lan mooy sa moral mu ne ma je plus que jamais déterminé tey am na ñoo xam ne ay dommages collatéraux lañ leen di woowee ñoo xam ne tey demoon nañ côté yooyu di dox seen yenn mbir bi leen bi ñu leen ramassé leen denc leen